yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre d'information. Ce qui s'est passé ce matin nous avons constaté euh, aux environs de 12 heures 10 minutes un départ de feu au niveau du dixième étage du building administratif président Mamadou Ce départ de feu est consécutif à des travaux qui étaient en train d'être faits au niveau de ce dixième étage. Nous avons immédiatement dépêché sur les lieux, naturellement, l'unité de sapeurs-pompiers qui est basée de façon permanente au building administratif. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec tout l'équipement dont tu disposes, heureusement, est venu très rapidement en appui pour que ce qui était en train de se dérouler puisse être rapidement arrêté. Ce dixième étage abrite deux grandes salles de conférence, un restaurant et une cuisine. sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire le feu uniquement à cet étage et de l'éteindre aux environs de 14h10. Je dois expliquer que y a eu des dégâts matériels concernant le faux plafond du dixième étage dans la partie restaurant. Il y a quelques dégâts sur l'autre partie, mais qui ne sont pas très conséquents. Il n'y a pas eu de dégâts corporels. Grâce au mécanisme de sécurité incendie, au système de désenfumage et au système de renouvellement d'air, pour vous dire que depuis sa rénovation, le building dispose d'un système de sécurité incendie et de protection des citoyens qui sont à l'intérieur avec des technologies de très haute pointe et d'un très très haut niveau. Heureusement que nous parlons de dégâts matériels et encore pas très importants qui ont été constatés. Au moment où nous parlons, le feu est totalement éteint, il est totalement circonscrit au dixième étage et les brigades, la brigade de sapeurs-pompiers nationale a installé une équipe de surveillance qui va, pour les prochaines heures, prochaines heures et prochains jours, surveiller tout départ de feu pour intervenir et l'arrêter. Les forces de défense et de sécurité qui ont accompagné l'intervention des sapeurs-pompiers sont également, ont été présents et avec les sapeurs et tous les techniciens qui sont commis à cette tâche, ils sont en train de mener les investigations techniques qui permettront de déterminer de façon plus précise qu'est-ce qui a été à l'origine du départ de feu également expliquer sur le système qui est mis en place à fonctionner de façon optimale et de procéder à des recommandations. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons dire de cet incident, de cet incendie. qui heureusement n'a pas fait de dégâts corporels et les dégâts matériels qui ont été faits sont circonscrits au dixième étage et ils ne sont pas d'une importance substantielle. Voilà pour l'instant ce que je pourrais vous dire. Je suis Abdoulatif Koulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement. Un communiqué vous sera transmis tout à l'heure. enseigner en non non vous dites je peux entendre. nous sommes en train de faire une évaluation ce que je suis en train de vous dire c'est très précis il n'y a rien qui soit touché ni atteint au niveau du neuvième étage jusqu'au sous-sol il y incendie il faudrait prospecter tout ce qui pourrait être éventuellement un départ de feu, et sur la permission des sapeurs-pompiers, tout le personnel devait revenir à son bureau demain matin en principe. Mais nous attendons le feu vert des techniciens qui sont supposés maîtriser la situation pour dire vous pouvez intégrer vos bureaux, oui ou non. Voilà. Vous ne m'avez pas bien compris, des travaux étaient en train de faire en haut, au niveau du dixième étage, pour de mise en place d'un système de nettoiement et de sécurisation de l'ensemble du building. C'est à partir de ces travaux, mais on ne sait pas encore techniquement ce qu'il en est. Vous avez compris Il nous faut les investigations. Salaamu aleykum mbooloo mi bokk yi ñuy seetaan di ñu déglu voilà bu ñu santee suñ borom julli ci yonentam bu tedd bi ñu nay waxal mbir mi nga xam ne tey moo fii ci building administratif ñu koy wax building président du Dia building boobu lu mot ministère yu bari ak service état bi lañ fi logé tey bi ñu toogee ba midi ak fukki minute dañu nemmeeku saxaar su gilli bu baree baree bari ci kaw fukkili étage bi ba ña nga xam ne ñoo fi nekkal sapeur pompier waxtu wu ne système alerte bi fonctionné mooy fu nekk étage bu nekk dafa am sonnerie boo xam ne dafa ne wax ne génn leen ngeen fagaru ko ndaxte am na tàkk gu am ci biir bi tàkk moo xam safara la moo xam saxaar rek la ba moomee it nit ñi nekk ci building bi niñ ko manee dugguñ ci ascenseur yi waaye nañ ko jàngalee dañ jël escalier yi bañ jógee ci kaw ñuy jógee fukkeeli étage ñuy jógee juróom-ñeenteeli étage bañ wàcc suuf yàlla mi dara teewul ci mbaaxam ak ndimbalam benn gaañu gaañu gisuñ ko ci nit koo xam ne kii muy foon la ko waral nag ñàkk gaañu gaañu yooye mooy ni ñu tabaxaatee building bi ak niñ ko ñoŋalee ak ni ñu assuré li ñu xam ne mooy sécurité benn dañ fi def benn système boo xam ne bu saxaar jógee dañuy jël dafa am loo xam ne day tibb ngelaw li ci biti du ko dugal ci biir dugal ko fépp foo xam ne ruq-ruq la fu fu doomu aadama nekk ba nga xam ne dañ mën a nooyi nooy gu doy gu mucc ayib danañ mën a dox ba yegg fañ ba de loolu mooy wax système de renouvellement air bi ñaareel ba dafa am loo xam ne day tibb saxaar si nga xam ne moo jolli di ko xalab ca biti tibb saxaar génnee dugal ngelaw lu baax mu circuler ci biir nit ñi maanaam safara jotul tàkk waaye bu tàkkoon it am na lu ñuy wax coupe-feu yi foo dem bu safara day jéggi am na loo xam ne dafay nekk ci kanamam coupé ko loolu gannaaw yàlla ak yonent ba buy am tey rénovation bi ñu defoon la waaye it ñu wax leen ne gaañu gaañu amut ñu wax leen nag yàqu-yàqu am na waaye dafa yem ca kaw mooy fukkeeli étage bi nga xam ne am na ñaari salle conférence yu mag yoo xam ne gouvernement bi léegi fu mu doon dem di louer hôtel dafay ñëw fii def conférence am yéen yi mën ngeen ko seede salle yooyu Omar Gueye mi porte parole ak yeneen ministres ñu tànn yi kilifa gi tànn ñu dem waxtaan ak yéen foofee dara jotu ko mu nga yem ca restaurant ba walla gale nga xam ne fale la féete yàqu-yàqu yooyu itam faux plafond bi mooy yàqu maanaam fi saxaar si dugg ak fa mën yenn am na ay yàqu-yàqu tuuti terrasse ba ci ay panneaux yu nekkoon foofu ñu koy jëfandikoo ci yeneen i mbir ak système lu ñuy wax gainage gainage mooy li nga xam ne moom la ñuy dugal ngelaw yeeg yu ni noonu pour ñoŋal bu am na ay yàqu-yàqu tuuti waaye yàqu-yàqu yi mënoon a am ñu mënoon ko ci yaakaar lu ni mel yegguñu foofu alhamdulilahi rabbil alamin yàqu-yàqu ba itam wàccul dixième étage neuvième étage boo ñëwee mooy fi secrétariat général nekk nga teg ci ministère de la justice ba ba ngay wàcc suuf amul benn benn benn yàqu-yàqu boo xam ne gis nañ ko fa saxaar nag bu amee ay mur yu ni melaat waaye bale rek raxas mu set la bi lii xewee nag dafa am sapeur pompier yu nekk ci kër gi ñoo xam ne ñoom daanaka fi lañ dëkk ñoom ak ñun a fi ne ñoom fi lañ leen affecté ba mbir mi ne cocc rek lañ yëg ñoom def seen liggéey xaar brigade sapeur pompier yegg si ñoom ñëpp ñëw nañ colonel commandant bi nekk Dakar général bi sax mu ngi taxawoon loolee yëpp euh, euh, ay la yéwén kilifa gi dafa tukki waaye amul ci benn waxtu boo xam ne wi am na lu ko ump ci mbir mi ak digal yi nga xam ne mooy digale waaye wax it secrétaire général ministre président de la république mu ngi fii ci ndaje mi teewe waxtaan wi leen ay waxtaan loolee lépp nag buy buy mat tey jii ñu yegg si fi ñu yegg si gaañu gaañu yàqu-yàqu ñu yemale ko gaañu gaañu ci yaram yi gisuñ ko ñu ko sant yàlla ba pare nag dañ koy gërëmee it sapeur pompier yi parce que seen liggéey la waaw loolu wax naa ko ci njëlbeen ma ne dafa woon ouvrier yoo xam ne dañ ñëwoon di liggéey ci dixième étage lañ fa doon liggéey mooy dañ doon ñëwal doxalin boo xam ne bii tey dañ ko mën a gën ko jekk li nga xam ne mooy façadam yi ak gën ko aarit ci mbiru sécurité ñi fi liggéey yooye nag buñ ci liggéey dafa am jumtuwaay yoo xam ne dañ koy jël di ko jëfandikoo mën na am na ci jumtuwaay yooyu la jógee mën na itam feneen la jógee kenn xamut voilà liñ mën a takk ci li nga xam ne mooy li am kenn mënu ko weddi mooy ca liggéey ba la la booba lañ kontaan xool ne am na lu xew soobee yàlla yontu ba commencé na daanaka parce que sapeur pompier yi xam nga ne fii building dafa am brigade de gendarmerie bu fi nekk brigade de gendarmerie boo xam ne bi gendarme yu bari comme boo demee ci gendarme yi nekk ci ci réew mi ay brigade lañ ñu ngi fi ñoo a police judiciaire waaye bu ma waxee police judiciaire enquête technique la waxuma enquête pénale il faut loolu ñu wax lu leer a leeral mooy li nga tax euh, euh, safara si tàkk ak nu mu tàkkee ak fu mu jógee loolee balaa ñu ci mën a wax dara enquête bi tëral ko ne lii ak lii ak lii la waaye li ma leen mën a baamtu mooy wax dëgg yàlla li xew tey bu ñu amutoon système de sécurité bi nga xam ne moo war ci building yu ni mel konoon wax ci dina demee nay teeneen alhamdulilahi rabbi alamina ba nga xamee ne loolu am na jaa jëf bu doon suma sago bu ñu xëyee huit ñu dem liggéey waaye nag ñun fii ndigal technique la ñuy jot pour dem liggéey suñu bureau yi dañu fa génnee ñun ñëpp gis ngeen fi ñu taxaw ci dem mi tey balaa ñu fay duggaat sapeur pompier yi ak yi fi nekk ñoo naan ministre fi mu nekk nii ku ne mën na dellu bilo ñu ñaan yàlla moo am ci nu mu gën a gaawee jaa ngeen jëf yal leen seen bopp yal ngeen seen liggéey bi gën a ñoom de secours euh, numéro un c'est-à-dire euh, je commande les sapeurs-pompiers de Dakar voilà donc c'était c'est aux environs de 12h50 euh, que nous avons été alertés euh, pour un feu euh, au niveau du building administratif donc il convient de relever que le building administratif est un immeuble de grande hauteur Et très rapidement, euh, nos unités se sont déployées. Et il faut comprendre également qu'on avait une unité sur place, une unité de sapeurs sur place, donc qui ont, après l'éclatement du feu, ont pu procéder très rapidement à l'évacuation de de l'immeuble. Donc il n'y a eu aucune victime, aucune personne intoxiquée. Euh, à l'arrivée du renfort, l'incendie a été maîtrisé au bout de deux heures de lutte contre les feux et les flammes, et également les gaz et fumées. Donc euh, présentement, l'opération n'est pas encore terminée. Est-ce que le, le feu a repris? Non, le feu est éteint. Le feu était éteint a deux heures de temps. Mais comme vous le savez, les sapeurs-pompiers sont toujours sur site pour euh, compléter les opérations de déblai et de dégarnissage. Donc euh, ça va être une opération assez longue. Il faudrait qu'on s'assure, et comme je vous ai dit, c'est un immeuble de grande hauteur, qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Donc c'est les coins zéro coins, la reconnaissance euh, de l'immeuble, voir s'il n'y a pas de point chaud pour éviter toute reprise de feu. donc Le ministre, secrétaire de, euh, de, du gouvernement s'inquiétait tout à l'heure par rapport à la possibilité de retourner dans l'immeuble demain. Vous, en tant que technicien, est-ce que vous pouvez rassurer sur la possibilité euh, que les travailleurs retournent dans leur bureau dès demain euh, Pour l'instant, il y a l'enquête qui est déjà en cours. Comme vous le voyez, il y a les services de défense et de sécurité qui sont sur également pour faire les enquêtes. Et l'évaluation aussi technique se fera, elle est déjà en cours également par les éléments des sapeurs-pompiers. À l'issue, on pourra décider éventuellement si la reprise pourrait se faire demain ou pas. Mais l'origine, comme je vous l'ai dit, vous avez vu tout à l'heure euh, les forces de défense et de sécurité qui sont sur site. Ben, je crois que ces forces sont en train de faire leur travail. À l'issue, très probablement, elles vous communiqueront les résultats de leur enquête. Vous avez mis deux heures de temps pour euh, maîtriser le feu. Est-ce un bon timing en tant que spécialiste En fait, il faut considérer que c'est un immeuble de grande hauteur, donc c'est des feux vraiment très complexes. Et si vous avez fait attention, vous nous avez vu en fait sur la terrasse. Et qui connaît bien la, euh, la construction des lieux, c'est que quand même c'est assez périlleux et assez dangereux. Et comme je dis, il y a l'extinction des feux en, en, et au-delà de l'extinction, il y a tout un travail qui doit être fait en aval pour s'assurer que fondamentalement qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Euh, en fait, dans, dans le cadre des, des, des, immeubles de grande hauteur, euh, y a toute une architecture qui a été mise en place, d'où la présence permanente des sapeurs-pompiers. Euh, et, et, heureusement, c'est ce qui nous a permis d'éviter le pire.

24 engins de tout le groupement d'incendie et de secours numéro 1. Mais également, on a euh, de la compagnie spéciale de sauvetage de développement, même que la compagnie du port. Merci. À ah, Tchouolof. waaw man maay euh, lieutenant colonel Papa Ange Michel Diatta man maay commandé en fait euh, sapeur pompier yu région de Dakar donc ay côté midi 50 la ñu woo nañu dafa am euh, benn fumée suspecte euh, boo am fii ci immeuble euh, ci immeuble bi ci ginaaw donc bu ñu yegsee pompier yu Malick si ñëw njëkk a yegg si en renfort après yeneen pompier yi nekk ci région Dakar bi ñoo ñoo fekk si leen mais il faut savoir que immeuble yi am nay pompier yu fi nekk en permanence ñoom ñoo permettre très rapidement bu ñu amee kii alarme yi sonné ñu évacuer ensemble bâtiment bi yëpp ñu évacuer bi donc loolu ça permettre na amuñu benn victime même ku intoxiqué sax amuñu ko après nag ñeneen suñ ñëwee ñu ñëw commencé gérer euh, l' incendie en lui-même donc en bout au bout de deux heures de temps euh, lañ lañ lañ lañ lañ fay euh, incendie bi mais incendie bi fay na ça n'empêche pas que personnel yi lañ fi des pour mën a assurer wu du am benn reprise de fa donc lu ñuy tuddee ñun ci jargon pompier déblayer dégâts dañuy xool fu nekk. ci fil fii ci ci gain technique yi surtout parce que ñoom ñoo gën a important ndax amul luy tàkk ji loolu yëpp dañ dañ ci sottiyaat ndox vérifier lamb par point chaud ak yenn caméra infrarouge yi am exactement su dee am na possibilité de reprise ou pas après déblai dégannage dinañ def ay ronde de temps en temps pour xool effectivement su dee amul benn reprise bu ndaw ndaw et très tôt ñu man ko gérer man ko fay. waaw donc pour dellu si suba comme je vous am na benn évaluation bu nekk en cours xam nga dañuy saytuwaat sécurité la tàkk na ni dañuy xoolaat exactement lan la laal ban système la laal ba fan la toll est-ce que loolu dinañ ko mën a suñ ko évaluer ba pare dinañ mën a wax si nañ ñi mën a dinañ dellu si demee ou pas. ne tàkk bi aussi comme vous avez dit gis ngeen force de défense sécurité yu ñëw fii. pompiers yi fay nañ ba pare en euh, ñoom dinañ ñëw ñoo ngi def seen enquête présentement on leur a permis de rentrer ñëw mën a def seen enquête ñoom suñ defee seen enquête ba pare saytu mais dinañ mën a dellu si peut-être ci yenn journalistes yi wax leen exactement lan mooy origine du feu bi. waa dégâts comme je vous dis aussi c' est cours d' xam nga ñoo ngi soog a pare extinction bi duñu ñu gérer gum yooyu au détail maintenant suñu paree. def lépp ñu mën a dem exactement su dee amul reprise de feu ñu mën a évaluer au détail près lan moo lakk lan moo lakkul mais nous on était dans l'urgence pour fay ko loolu la ñu def quand même et là j'en profite également pour féliciter tous les personnels de sapeurs-pompiers waaw loolu en fait moo permettre sax ñi mën a amoindrir dégâts yi parce que gis ngeen nit ñu takku ñoo fi nekk généralement voilà et amoon nañu ay sapeur pompier yu fi nekk donc très tôt le premier réflexe mooy ñu soobee bakkani nit ñi loolu moo nekkoon moo tax ñu évacuer d' abord les niveaux sinistrés après bu ñu xamee ne c' est un peu compliqué ñu évacuer ñëpp général soo gisee ñëpp fii lañ nekkoon ci ci ci suuf voilà. Euh, lieutenant colonel Papa Ange Michel Diatta commandant le groupement d' de secours numéro un. voilà. del déglu